wa tabiihim bi ihsaanin ilaa yawmi diin dañuy jëkkalanteeg euh, waxtu yi euh, yàlla def na ñoo ngi doon xaar ñu Moustaz Ali profité jàngale xatmu bi ngir gañe bi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ngóor ak jigéen mag ak di jiiteel ci nuyoo bi suñu jaajëfal bu baax ji Cheikh Mouhamad Touré nga xam ne yàlla ñu booleeg moom. depuis ay at te chaque année mu def ci ñun loo xam ne euh, dañuy yaakaar su déwénee du mënati lu toll noonu waaye su déwénee ñu gis lu raw loolu ndax yéene ngim am ci ñun ak yitteem bu kawe ak bëgg yàllam ak jàpp ne ay ganu Cheikh Ibrahima Niass lañ ñëw nañ dal ci ko am lépp lu ñu defal rek Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la ko defal آه، شكرتك إن الشكر للعبد نعمة واني الميكرو آه، شكرتك إن الشكر للعبد نعمة ومن يشكر المعروف فالله زائده بكثير أنا شكرتك تكنا على إن الشكر للعبد نعمة نه ندفل لباخ نسنت لباخ لولا لولا تمن خيول لولا تمن خيول خيول لولا soo sante xéewal yi tamit loolu beneen xéewal la ndax saa boo santee xéewal rek yàlla nee na damay dolli xéewal gi aman yashkuri maarufa fallahu zaidu képp koo xam ne da ngaa gërëm lu baax liñ la defal xamal ne fallahu zaidu yàlla dina dolli lu baax loola ñu ngi koy ñaa lépp lu mën yàlla man barke alxuraan te di ko wax ne ñun ñii xam ne képp ci ñun ku yàlla nangul sa gàmmo jox la téeméer wóor nañu ne yàlla day fóori j boobu def ko junni jox ko moom ndax lim gàddu ci suñu wàcc wi ak suñu suñu dal fii ci goom lim ci gàddu ci coono suñu jafe-jafe yàlla na ko yàlla fay ci barke di nuyu sama papa di yàlla yàlla ko yàlla yàgg di yu baax eh, sama nijaay Eh, Cheikh Aboubacar eh, Ba di nuyu Oustaz Ibrahim Thiam nga xam ne ma doon joxe misaal tey ci taalibe Baay bu dëggu nan la war a mel. Mm-hmm. benn misaal rek doy na ci man Oustaz Ibrahim Thiam. waaw dafa dëggu dëggu yàlla amul tànk ginnaaw benn gisin rek la am mooy Baay Ñas. Mm-hmm. toujours Baay Ñas moo ci amu ci dindi la ak defal. Mm-hmm. koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk ci la maa ngi nuyu Oustaz Ali Oustaz Ali Sow moom tamit alhamdulilah ni ngeen ko xamee su ma waxee ci moom rek daanaka mel ni ci sama bopp laay wax mm-hmm. Oustaz Ibrahima Anne mais ngeen gis nag gàmmu ga ca Géejawaay seen koñ moo ko doon féetewoo chaque année ren maa ko proposé pour ñu ñëw gàmmu ji Medina Baye c'est la première fois muy gàmmu ji Medina Baye ba mu tàggoo gars yi dañ ko ne ah kon gàmmu gi nu muy demee mu ne gàmmu gi kay ren Medina Baye rek moo ngi doon jël otoom ma ne ko nañ jàdd ci station bi ñu sol ko ndekete moom def na ko plein suba teel di ma te kenn ku nekk xam na ne Kaolack ñëw fi gàmmu incha allah nekkul lu yomb sa xaalis dana ci dem sa coono danga danga yëg coono macha allah fii xëy na ndox mi neexul bëri na ay yoo na waaye nag dafa am luñ fi wuti ñëwuñu pour noosi waaye dañoo ñëw pour wut ndollal ci yàlla ñëwuñu pour noosi dañoo ñëw pour wut tëbb ci yàlla yàlla nag su la yombalalee dara day yomb su ko jafalee day jafe ñu sant nañ yàlla ba ñu yàlla yombalalee ñëw Medina Cheikh Ibrahim Niass gis nga Firawna sànni nañ ko ci géej mu lab ginnaaw ba mu amee jabaruuti ya gi ko yàlla may yonent yàlla Moussa nekk liir bu ndaw ñu sànni ko ci géej gi te lawul kon yàlla su bëggee yombal dara def ko yombal su bëggee jafeel dara mënoo ci dara Firawna moo taxaw ne alaysa li mulku misra wa hadihi al anhaaru tajri min tahti afala tubsirun tey maa yor buuru misra maay buur bi jéeg yaa ngi daw sama ron afalaa tubsiruun ngeen xool lu yéemee ni yàlla jël jéeg yi ndox mi dawal ko ci kawam moom Firawna yonent yàlla nekk xale bu ndaw ñu dugal ko ci kees sànni ko ci géej gi xam ne histoire bi ndax yoon Firawna def ne képp ku judd ci dëkk bi te nekk doom bu góor nañ ko rey yaayam jur ko ragal ñu rey ko mu dem ci menuisier bi ne ko defaral ma kees pour ma dugal ci sama doom ji yàlla moom ma digal naa ko sànni ci géej gi ndax alquran wax loolu wa awxayna ila ummi Moussa an ardihi ma wax yu yaa yonte yàlla Moussa ne soo ragal nampalal Moussa fa ida xifti alayhi soo dee ma ragal ci mbiram fa alqihi fil yammi sànni ko ci dex yonent yàlla yaay yonent yàlla Moussa ne ma jël sama doom sànni ci dem bi ne ko wala taxaabi wala taxsin bul ragal bul jàq inna radduhu ilayki danaa ko delloo ba ci yow wa jaa'iluhu minal mursalin te danaa ko def ci yonent yi la ko yàlla wax nag am na confiance ci yàlla ndax bokk na ci jëflante gi yàlla nga am ka siqatu billah mu jël mu dem ca Monisé ba ne ko defaral ma kees mu ko looy doyee kees mu ne ko damaa am doom te góor la te suñ yëgee dañ koy rey dama yàlla nag moo ma wax ni danaa jël sama doom ji dugal ko ci kees gi sànni ko ci dara jamono yooyu su nekkee ne indi nga benn information bu mel noonu ci fiir aw na fiir aw na def lay jël def la ci ñu ko gën a jege ndax def ne ku gis doom góor rek dañuy wax ma ndax dañ ko ne woon doom bu góor mooy yàq sa nguur gi waaja profité ne ko waa demal ba ngoon menuisier bi demal ba ngoon nga ñëw mu wax ko yaa ñu ngi demee mu rocceeku ndànk dem ci pale bi pale bi nag soo doon indi xibaar kenn du la ci xibaar laa indi xibaar laa indi dañ lay bàyyi rek ngay jàll ay buntu buntu la ba nga yegg ci buntu bu mujj nga jàkkaarloo nag mu xarra dina yi nga xam ne di daw naa ngi toog ñoo koy wër ba mu yegsee ba foofu bëgg a wax xibaar bi te yàlla nag wiqaayatullahi aghnat al mudaafati min al duru'i wa naali min al utub loolu la limaamul Busayri yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla protégé na ko ci lëndëm jorgoñ nga lëndëm jorgoñ inna awhanal buyuuti la baytul ankabuut ba yéeféer yi gisuñu ko kii ba mu ñëwee bëgg a joxe information bi Jibril daal fël làmmiñ ji mu nekk di saaga Firawna mu ngi saaga Firawna nag daal kii muy wax ñu téye ko noonu wulli ko ba yaram bi yëpp mooy ñu sànni ko bi mu jógee di xalaataan man lan moo indi fii sama lan moo ma indi fii ba ñu may dóor mu dellu ba ca palaas ba mu ne pourtant man li occasion la su ma ko waxoon sama lépp a mu delluwaat ñu may leen ma information la may leen ma information la ba mu yegg ci firaw na commencé di di wax ndekete Jibril seen na la meñ bi muy saaga firaw ñu dóoraat ko ba yaram yi mokk di sànniwaat ko mu toog nag di xaar soxna si ne lii biir la ngoon si ñëw soxna si ne ko ana sama kees mu ne ko yow sa doom bi ñu ngay jur lan la moom ko kii yàlla dig na ma ne ci yonente yi lay bokk moo koy wa jaa'iluuhum minal mursaliin mu ne kii kay yonente yàlla rek la ma ko mën a man de sa ginnaaw jéem naa ko weer biram de waaye la ma fa daj yàlla rek a ko xam mu daal di ko defaral kees gi ñu jël yonente yàlla Moussa yaayam jël ko def ko ci kees bi sànni ko ci géej gi pour nga xam idal inaayatu laaxadatka uyuunuhaa numpal xawaadisu kulluhunna amaan sànni ko ci géej gi dara jotu ko ba yonente yàlla Moussa fàkk moo tax yonent yàlla Moussa ba muy wax Xadir axaractaha li tuxriqa ahlaha da ngay damm gaal gi ngir nga labal ñooñu gaal gi Xadir ne ko fàtte nga xale bu ndaw nga woon liir ñu sànni la ci géej taxul woon nga lab mhm. kon su ma xottee gaal gi lu tax nit ñi lab jàng la yàlla su bëggee yombal dara daf koy yombal jabaruutiye fi aw na terewul yàlla labal na ko xale bu ndaw bi nekk liir yàlla protégé ko ci géej yonent yàlla Moussa dafa dem pour uti xal yoo xam ne pour jabaram jaaru la ndax ci sedd la dafa am doom faraja bi nubuwati yàlla may ko bi muy dellu ànd ak yàlla may ko nubuwa xoolal bu uti woon ay xal dem ci uti xal ngay ñibbi yàlla may la ak nubuwa mooy nekk yonant hmm. xoolal nekk yonant ni mu garaaree te yow nga uti woon xal yoo xam ne pour sa jabar jaaru la nga dellu fekk yaa ngi ànd ak nubuwa yàlla su bëggee yéwénal sa biir daf koy yéwénal hmm. ñun nag dañuy sant yàlla ba ñu yàlla yéwénalee ñaaram bu njëkk bi mooy yàlla yéwénal lañu ñu nekk ay taalibe Baay te nekkul lu yomb Baay Ñas nee ne man maa yéeg avion tiim Zaria xallabtu fawqa Zaria wa qultu wajidtu law anni biha qad qiltu kabiruhum habibuna yahuda qad faaza man kaana lahu tilmisa maa yéeg avion tiim Zaria wa qultu ma ne wajidtu law anni biha qad qiltu waroon na tey ma yendu Zaria sama xel a ngi ci Zaria Zaria dëkk la foofu la Baay Ñas radiyallaahu defee woon waxtaanam googu ñu bind tuddee ko majlisu zaaki bàyyi ne kabiruhum habibuna yahuza mooy seen ngandama seen mag ba seen sëriñ ba mooy suñ soppee mooy maalam yahuza man yàlla def na ziyaare naa foofu ay yoon yoon ndax Zaria ñoom dañu ne saa bu ma ñëwee Nigéria rek naa yegg foofu defal leen muhaadara gis ngeen seen mbooloo mi seen kilifa yi ñëw nañ ba fii ziyaare si ma keroog mu ne bàyyi ne ne xat faasa man kaane lahu tilmisa texe na كنك تالي نيال مالام يهوذا تي بير زاريا مالام يهوذا غاند موم كنك تالي بي تي بير زاريا تخيغا لولو باي نينا كي نك تالي بي مالام يهوذا تخيغا بيم نيني يو مان نغا لاج كون بن كيسيون غاني كون كي نك تالي باي جيرتو لاج ناخ تخينا ولا تخيو ناخ باي كنك تالي بي مالام يهوذا تالي باي كوكو تخينا ba tax na maalam Jibril jóge fi gën a sori ginnaaw may dëgëri borom xam-xam la waliyu yàlla la aalim la na mën na jàngal sax maalam Yahuda mu ñëw lal téeréem ci maalam Yahuda ne ko damaa bëgg nga lalal ma benn darsu pour ma bokk ci sa taalibe bis pencum yàlla na bàyyi ko mhm. xat faasa man kaana lahu tilmiza yow ku nekk sa taalibe te xel moo tax mu bëgg na nga jàngal ma benn darsu mhm. pour ma bokk ci sa taalibe kon ñoo ngi sant yàlla ci nekk taalibe bàyyi Mm. yow yàlla yombalal nañu ko am na ñoo xam ne jafe nañu ñëw. tawfeex yàlla la yàlla yàlla na yàlla na continuer. ñu yokk amiin amiin yaa rabbi ndax Cheikh Abdoulaye mu ne ñiy uuti yàlla bëri nañ lool du ñëpp ay amandoo yàlla. Mm-hmm. ñi am yàlla bëri nañ lool waaye du ñëpp ñoo koy dugal ci poos boo xam ne loxol yàq du fa yegg. alhamdulilah du ñëpp ñooy bëggandoo yàlla. ñi bëgg yàlla ñëpp ñoom ñooy wërandoo yàlla. ñi wërandoo yàlla ñoom ñëpp ñoo koy amandoo. ñi amandoo yàlla ñoom ñëpp du ñoom ñooy amandoo fu ñu koy dugal ba nga xam ne loxol yàq du ko yegg sant nañ yàlla bi yàlla boole ci ñuy bëgg yàlla mu boole ñu encore ci ñuy wër mu boole ñu ñuy dajeeg i Ibrahim Niass ñu am lañ am a ci sitku ak mahabba ak ixlaas ak maarifa ñoo ngi ñaan yàlla ci barke ziyaara bi ci barke gàmm amiin yaa rabbi ñu ko yàlla laqal boo xam ne loxol yàq du ko amiin yaa rabbi ndax paasewul de ndax am na ñoo xam ne amoon nañ lu mel noona waaye dafa yàqu so xamee histoire Medina Baye bi dañ ko xam te balaa histoire Medina Baye bi démb am na benn waa ji tudd Bal'am ibnu Ba'ura Bal'am ibnu Ba'ura benn borom xam-xam la ci borom xam-xamu bani Israël borom xam-xamu bani Israël yi bëri nañ lool waaye kii jamono yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa def ko jàngal xam-xamu tawrat ba mokkal tawrat nee nañ bokk na ci xususiyaatu Bal'am ibnu Ba'ura waa ji su daan toog kaana yaraamu baata ila lawhil mahfuus yàlla ko doon ci kiiraay digganteem ak lawul mahfuus ñu gis lawul mahfuus alxuraan ne kii watlu alayhim naba allazi aataynaahu ayatina fan salaxa minha xoolal aataynaahu ayatina bal amit baura alxuraan ne maa ko jox ayatina samay kéemtaan léeg-léeg ñaar ñaar am na am na koo xam ne yàlla nee na wala qad araynaahu ayatina kullaha fa kazaba wa aba firawna yàlla ne maa ko woon samay kéemtaan yépp man laa zintu atahayyaru indama aqilu ala hadihi al su may xool aaya yooyu damay gëlëm mm. doomu aadama nan la la yàlla di wanee kéemtaanam yëpp la yàlla wax xoolal kéemtaanu yàlla yi ni mu toll laqad araynaahu ayatina kazzaba wa am si aw na taxaw lànk ne war nga ma sa kéemtaan yëpp yow yàlla ma lànk bañ am koo xam ne nangu na mm. waaye ba mu nangoo mm. loxol yàq ñëw yàqal ko mooy bal amit ne ba ura alquran ne man wattu alayhim naba allazi aataynaahu ayatina fan salaxa minha mu daal ginaaw bi mu nangoo ginnaaw ba ma ko solee wilaaya ma sol ko tawraat sol ko iman sol ko taqwa ragal yàlla fan salaxa minha loolu yëpp mu daal di effacé wu ci loolu ne fa atbaahu ba léegi baat waxul fa tabia cheytaana waxul fa tabiahu cheytaan mais fa waxul bal abim na baawuraa daa topp cheytaane mhm. kon mu neex a dégg waxul seytaane def koo topp pour yàqal ko kon mu neex a jégg waaye fa atba'ahu seytaane seytaane toftaloo ko fa atba'ahu seytaane fa kaana min al-ghaawiina ndekete am lu rëy du tee yàqule su nekkee ne yàlla musalu la yaa ngi dégg su yàlla su la yàlla xoolewul al-jinaayatu rabbani Bal'am ibn Ba'ura bani Israayiila yéefee ñoo ko proposé alal ji bëri ndax kaana mujaaba dàpp ku nangu ñaan su doon ñaan yàlla yàlla day nangu hmm. su doon ñaan ndax sell gi mu sell ci yàlla léegi nag xeex war a am diggante jullit ñee ngi yëfee ñu ñëw fay ko alal ñu bëri ñu ne ko dañoo bëgg nga féetew ñun nga ñaanal ñu pour ñu gañ a yëfee mu ne doon na def listixaar daf koy listixaar gis Jibril di matt baaraamam di ko wax bu ci dugg hmm. waaye gars yi di sotti xaalis bi ndax xaalis tamit seetaane la ñu koy yokk xaalis mu defaat beneen istixaar gisaat jibril di ko def loolu à la fin ñu ne ko góorgóorlu rek nga defal ñu ñaan rek ba muy ñaan ñaan nga alxuraan moo ñuy nettali hikaaya bi bal am fam taxawee di ñaan noonu fala yàlla xëcc làmmiñ bi mu daal di juree ko ba mel ni làmmiñu xaj alxuraan ne masalu ka masali kër bi tax bi na léegi yàlla xasu aw tatruku yàlla xasu ndeke bal am ibnu baawuraan doon toog ci suuf di gis lawxul mahfuus ndeke la ko yàlla mayoon amul chance pour làkk ko koo xam ne. loxol mm-hmm. yàq du ko yegg. yàlla day tëddee misaal ak ñeneen ñu mel ni ñoom. ñun sant nañ yàlla li ñu yàlla defee ay taaliba ñaan nag li ñu yàlla may. yàlla ñu ko yàlla làqal koo xam ne loxol yàq du yegg. amiin xam nga loxol yàq fan lay tàmbali dugg ci taalibe baay. mooy ba ne am na lu a rëy li ko yàlla may. amul gën a rëy. li yàlla may taalibe baay gis. su ko xamul. na fexe xam ko su ko xamee na sant yàlla jéem a continuer beneen xéewal bi muy xéewalu dellu si waat Medina Baye ànd nañ doon àndee macha allah cheikhaan yi kenn ci góorug yàlla yi ku nekk xam na cheikhaan yi mooy kan su nekkuloon coppaniku bi yàlla def ci ësal ne bàyyi mooy muraadu li xam li sirri min qabli nashfati murabbi li kulli aarifina comme ni ko bàyyi waxee ci bayti konoon bàyyi dafa war a nekk taalibe cheikhaan yi waaye cheikhaan yi warul nekk taalibe bu bàyyi ku xam mbiru seexaane ku xam mbiru maamam yi ñu Muhammadul Haafis kon na nga fekk yàlla comme ni ko papa Ousseynou daan waxee maa tey bu yàlla la yàlla moo def te jël yi bu ko neex ci Cheikh Ibrahim Niass moo tax te jël yi bi ngéliman boo dem aarifina billaay maqaam bi nekk maqaam ak maktum buñ dëpp pour nga dégg ko day jafe moo tax yàlla def te gis ñoom seexaani mujj nekk ay taalibe bàyyi waaye su nekk doon loolu Cheikhaani warul nekk taalibu Baay waaye Baay moo war a nekk taalibu Cheikhaani waaye nag kéemtaanu yàlla ak mayam ak tasarrufaatoom ci bindee Cheikhaani ci boppam ni mu woy ni mu déggee arab bàyyi di ko wax anta ash'aru minni walakin mamduhi akbaru min mamduhi yaa ma gën a mën a woy waaye ki may woy moo gën ki ngay woy ndax man yonent yàlla Muhammad laay woy yow man ngay woy moom woyam yëpp bàyyi benn xasida la jox yonent yàlla Muhammad te wax nañu lu tax mu wër yonent bi xasida boobu te jallayta fi afraaha inda muhibbiha walaw laaka ma in qaala ma qaala fi afraa yow yaa feeñ ci afraa jigéen jooju tudd afraa ba tax nit ñi bëgg ko nekkuloon yow kenn du bëgg afraa te jallayta fi afraaha inda muhibbiha walaw laaka ma in qaala ma qaala fi afraa kooku Seexaani moom su doon ñëw kaw la soo xamee xay gi fi xay gi nekk fi taxi yi doon gaare wetu kër Baay

loolu li ko waraloon mooy muxtaar wul xaamil yi boobu benn borom xam-xam la ñu Mauritanie mu ar suñu arrêté nañ Mauritanie yi gën a siiw la bokk maanaam historien Mauritanie yi gën a siiw ci la muxtaar wul xaamil yi bokk dafa gis ñaari borom xam-xam ñi gën a màgg ci ñi génn ci maxdaratuwul murabit mooy Xasan wul Sayib ak Taahul murabit nekk ñaari borom xam-xam ñaari kàngam yi gën a am xam-xam ci ñi génn ci maxdaratuwul murabit ci biir Mauritanie nekk ay wali yàlla nekk ay borom xam-xam ñu dem jébbalu ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass ñëpp yéemu ci loolu mu ne lii il faut taarix bind ko mu daal di bind ay abiyaat pour ndokkeel leen mu ne maa kaana asbaba raya daahi walxasani is alqayaa li abi isxaqa bi rasali falyahnia wa huma qad ulhima rashadan wa inna ayshan maa cheikhi lxadili ay mu ne maa kaana asbaba ndaw lu jub رأي التاه والحسن فخب تاه تاه المرابط والحسن الحسن والسيد نياري بونكولي نياري نغندي جاني خب خب بنا إر ميك أي ولي يالا ميك سيتي يتي على محمد فكتي دوه الألوية كي نموجي جبل سين بوكو نيت كنيو جسنك مولا ما كان أسوأ رأي التاه والحسن لو نجب فخب واجي تدو تاه الحسن القيالي أبي إسحاق الرسل بجي بجي باي نستيقاولا ñu jox ko seen nos ñu ne ko tey say saytaane la rek mu ne fal yeex ñi ah ñëpp war nañoo ndokkeel ñaar ñi ndax léeg-léeg yàlla may la lu rëy nga gis sa bopp waaye fal yeex ñi ah mu ne liñ am nañ sant yàlla fal yeex ñi ah waxuma qad ulhima rashadan yàlla yënke war na leen jub ndax ñëw nañ ci Cheikh Ibrahim te njub fekk yeggoo ci bàyyi yeggagoo ci fal yeex ñi ah waxuma qad ulhima rashadan wa inna ayshan maa Cheikh al Khalil te dund ak Mawlana Cheikh Ibrahim Niass dund bu neex rek lay doon ndax dund ci yàlla la bàyyi ñes démb ci guddi alhamdulilah ñëpp guddi gi yëpp démb dañ ko waxtaan ci yàlla bokk na ci waxtaan yi bàyyi ngi nettali ni góor yàlla yi bañ dajee ca péyib yàlla bu sell ga bakuntu li shurbil aashiqiina mudira maa doon xelli kaas yi di jëf góor yàlla yi ñu naan ca péyib yàlla gi sell bu sell mu ne naan googu nag wa bal xamul wa fa astaytuhum nahlan wa allan widaadahu وبل هم دام الغافلين حقيرا ماني ناند الغور يالا ينهلا ناند بو نجك دك بو ألا دلن خيل ناند نياري موي لي واجه وخور فعن هلك المأمون منها وألك ناند بو نجك موي كم برالي بسن كخيل لي لول مالي ناند اللول دلن ناند الديريب دليت به يوما ويوما وثالثا wa ma huwa illa wannabiyu bina yasri ila hadarati la abuhu bi sirriha bi amdin li zaydin amri waaye maa ngi gëlëm ci pay bi gëlëm naa ci moom yow man benn bés mooy bés bu njëkk ba wa yow man beneen bés mooy ñaareelu bés ba mm. wa saalisa nag ñetteelu bés ga mu wa ma huwa illa wannabiyu bina yasri dara xew ko lu yonent moo ñu téye rek di ci pay yàlla yi sell yi ila la abuhu bi sirriha du ma jëkkëri secret ya nekk ca béyga moo xam ci sax moo am ci moo xam damaa fàtte wala damaa tey du ma nettali mbóot ya li Zeydin wala am di du ma ko nettali Zeydin du ma ko nettali amul waaye ñes nee ma di sitqin jaali siina jëliisuhum maliku jumuri malikiina mooy bu sell ka ci péer yàlla bu sell ka góor yàlla yëpp a ngi toog maa ngi jël kaas yi di xel yi di jëf góor yàlla yi jaani si la ñëpp a ngi toog julu suhum jëli suhum ki toog ak ñoom mooy yàlla mi nga xam ne moom moom lépp foofa nag tey googu daañu sotilaan nee na nga gis gaa yaa ngi toog fekk ñoo ngi dox yasiruuna sayran fil majalisi faajaban bi sayri julusin yushbihuuna suxuura yasiruuna gaa yaa ngi dox jëm ca yàlla nee naa leen dox jëm ca yàlla nekkul doxub tànk waaye doxub xol la yasiruuna gaa yaa nga dox duñ la jaari si jotaay yi ñun niñ toogee nii fi mu nekk nii ñoo ngi dox ci yàlla benn hmm. tànk yëngatiwul allah ajaban yéemun di sayru juluusin doxit ñu toog hmm. ajabani sayru kan mu dëllalu hmm. tamshiru waydan wa tasiru fil wara oh. yéemu naa ci sa dox bi ndax yaa ngi doxee naa ko yaa jiit ñëpp alquran nee na wa taral jibaala taxsabuha jaamidatan wa hiya tamurru marra sahaab yaa ngi gis doj yi yaakaar dañoo dal benn doxul waaye toji yàlla ne ne yaayi gu rek waaye toji ka mu fu ñoo ngi wéy mar la saxaabi wéyub niir niir nag niir bañ ko xoolee dañoo fekk dafa am koy am lu koy yóbbu ngelaw li mooy yóbbu niir yi te alxuraan dafa jël maanaam doxinu toj yi nurale ko doxinu niir yi te niir yi dañ leen di mooy ngelaw leen yóbbu niir yi kon toj yi nga xam ne ñoo ngi dox si moo leen di yóbbu hmm. kon dafa am signification signification suuf am signification toj bàyyi nee ne yesiru na gaa yaa ngi dox sayran ci dox fil mm-hmm. majalisi si jotaay yi faaja ban yéemul bi sayri julusi doxit ñu toog yusbiru na ñoom ñu doog suxuran ay dëj boobu mm-hmm. yàlla bàyyi radiyallahu nee ne taraahum sukuutan gaa yaa ngi noppi ñëpp ñëpp mm-hmm. may xel li ñuy naan waaye wal maqaama musira yaa ngi gis mm. maqaama gaa ngi joxoñ xaal yi mm. a neex فهذا كملك لا يباع لدرهم البور يومنيا كان نقول ما أم خالص أن لو فهذا كملك نقول أن يتيا لا يباع لدرهم كن كجاي درهم لو نقول جو ولا أبو يدنا بقى ميدان وح لولا أني نصحر لما أحبت النقا بهذه الكلام سنك كلون خاتم خاتم تيال معارف يا يرتي أبا خل نك أكتر يا بجلي كتير يا الله في كذا ما يبين كن بقى تما تستي أدنى ndeke ñun li ñu yàlla may dafa rëy mooy yëg yàlla bëri na ku dem fu ne waaye yëg-yëg yi ñuy am sant yàlla ci delluwaat ci Madina sant yàlla encore nekkataalee baay a yeesalaat yi tey yeesalaat mbëggeel yi ndax vraiment ki ñëwoon waratul nekk kii dellu mhm. ndax war nga am yëg-yëg na yow ñëw nga Madina Baay Ñas te dolle dolle ko yal nañu yàlla may. amiin may li ñu am ci Cheikh Ibrahima ñu làq ko foo xam ne loxo yàq dafa yegg. chaque année rek ñu gën a am saw ci Baye Niass ñu gën a am mahabba ci Baye Niass. di ñaanal yàlla place bii nga xam ne fi la ñuy wàcc yal na fi yàlla sotti barke. yal na place bi jolli. ñeel ñooñu asamaan comme ni bitti bi di jollee ñeel ñooñu suuf. kon waxtu bi dafa gàtt. ndax ndékkee guñ. te bis bi yegg si na ba pare dañ nuyu rek macha allah te man su may waxtaan su biir bi amee rek du ma xam lu may waxtaan te biir bi yaa ñu di am bëggoon naa rek ñoo ngi mel ni nekk ci benn saal boo xam ne mm. fekk dara bi yow sax du sëqat kon oh. bu boobaa mm. danañ dox ci biir toogaay yi bu baax a baax waaye nag beneen yoon incha allah ñoo ngi nuyu Thierno ay jotaay ma ne ko Thierno Ismaïl defaati naa la présenté mu ne ma déedéet loolu ma gënal bu ma sax présenté macha allah.